ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification waaw préparation bi moom mook match de poule yi ñoo yam rek comme niñ ko doon préparé lañ koy préparé. bi nag deuxième tour la parce que deuxième tour moom dafa am solo deuxième tour moom pratiquement dóor toog la kuñ dóor rek maanaam maanaam fori nga déwénati. waaw waaw ñoo ngi waaj ñu ngi waaj ñu ci ñu ngi suñu rëq di liggéey rek. waaw ñu ngi liggéey bu baax a baax nekk suñu préparation ànd ak suñuy kosu ànd ak suñuy supporter di ko waaj bu baax a baax a baax. waaw comme d'habitude rek comme nañ ko daan préparé rek. waaw def jël ci matukaay yi ñu war a jël yëpp. ci wàllum jour yi nekk ci entraînement yi wàllum coach yi def li ñu war a def ñun dirigeants yi tamit ñu def li ñu def préparé comme ni ñu ko daan préparé rek te di ñaan yàlla mooy ñu dem incha allah. Euh, lu ñu wax rek ñoom nañ jël lépp nañ jël lépp ba ba jour ba incha allah buñ ci eggee dinañ xam ba xam ziare sant leen avant tout nañ ko football ci fair play que ziare sant yàlla ñëpp benn nañ te su ma si waree nee leen li ma leen waxoon contre ndox mi laa ne waxaat bu jour ba nañ solo weex tàll tàll tàll ma ci seen kerem toog bu ñu xuloog bu ñu xeex bu soobee yàlla incha rabbi ndam mi dinañ ko indi ziyaade bu soobee yàlla. non du question yomb na wala yombul ñun dañoo gëm suñu liggéey bi ñuy liggéey ak suñu costume yi li ñuy préparé loolu lañ gëm foofu lañ ko teg teguñu ko feneen pour xam nañu match bi nii physiquement techniquement mentalement pare kese laa ko teg du feneen. Euh, yàlla bu ñu dogalee ba nawetaan zone 5 sosoo ba léegi man de mosuma fàtte ñoom football la nag ku nek mu ngaa gagné sa morop mais nekkul ren ji lay am inshallah rek bu soobee yàlla ziaré muy football demi final. non disul ci ñun parce que euh, sante yàlla bien vrai que zone bi mom mo ci am 7 points bu ma jumulee parce que zone bi yépp ñi des 6 points la ñi am wala 5 points wala 4 points. Euh, moom nag defe naa ni mom rek mo ci am 7 points parce que dafa am deux victoires ak benn match nul mais football mom ñun ziaré baxé nañ lolu vice champion. man pratiquement ba muy football sax tase nañ nga ay vice champion mais dañ leen di éliminer euh, sant yàlla équipe bu mag la euh, ñun it GAD équipe bu mag lañ euh, ñun du ñu nelaw waaye ñoom it du ñu nelaw parce que ñoom it xam nañ am nañ client am nañ client. dañuy jàpp ni mën nañoo éliminer mën nañ koo éliminer mais man de ñun li ñu jàpp ñun ASC GAD mooy dinañ dem demi-finale incha allah dañuy éliminer sant yàlla a YouTube bu Caaroy info nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification